bouquet Sénégal Box TV ak bouquet Sénégal Box TV yéen ñi nekk ci diaspora bi dootoo leen tardé yeewu leen dootoo leen tardé Dakar ne dort pas di ngeen mën a xool Iran Ndaw lamb ji ak match yu équipe nationale yu Sénégal yépp foo mën a nekk ci àdduna bi ak les décodeurs Sénégal Box TV soxlaatu leen yéeg du monter antenne wala parabole pour seetaan chaîne de télévision sénégalaise yi soo bëggee xam distributeur Sénégal Box TV bi la gën a jege demal gaaw ci www.senegalbox.tv www.senegalbox Uras.tv wala nga woote ci 00221 77 257 71 38 Sénégal Box TV le bouquet de la diaspora sénégalaise. Sénégal Box TV le bouquet de la diaspora sénégalaise ñu ñëw ci deuxième pàcc bi ndax euh, la révolution démocratique du Burkina dina inspirer d'un côté ou d'un autre les dirigeants du euh, Sénégal ndax dina am ay enseignements yoo xam ne tiré nañ ko ci. pour renforcer suñuy institution pour gën a dëgëral suñuy démocratie loolu mooy euh, deuxième partie bi nga xam ne moom la ñu fas yéene euh, waxtaan ak yéen pour beneen une heure vingt minutes avant ñuy delloo antenne bi foofu ci euh, Ndakaaru Ndiaye ngir Ndeye Pétaw mën a jël pour cent pour cent émission boobu muy def alors Ndiaye Mamadou est-ce que jàpp nga nii la révolution démocratique o Burkina dina am ay incidence wala bokk ay enseignement yoo xam ne mun nañ ko tiire Sénégal pour gën a mun a consolider suñu démocratie et assurer suñu émergence ah Ndiaye Mamadou allo Ndiaye Mamadou bismillah allo maa ngi lay fay waaw nuyu la ah. waaw amat bala may tontu ci ci li ma laaj dama bëggoon rek nga baal ma ci une minute wala lu ko lu ko kii yées tuuti ma xamal la ne gis nga euh, euh, euh, damay déglu ki information TV5 ak yooyu ak yeneen yeeg yooyu mais boo gisee ñoom toujours ñu def parallèle ak ce qui s'est passé à Dakar ak ce qui s'est passé nu mu tudd au Niger ak Ouagadougou bah c'est vrai sànq. ñi ngi naan ay ay lay wadd mën ñu ko impliqué ci affaire yooyu noonu parce que c'est pas la même chose mais c'est la même chose dañuy jalgati constitution doon jéem a jalgati constitution et tout te puis tamit nañ xam ne euh, gis nga lay wadd euh, affaire bi dafa dafa ñun dañ ko tuutil gisuñu impact bi bi bi euh, kii am nu ñu koy waxeeti le 23 juin am ñun sax xamuñu ni mu ngréyee sur le plan international man moo koy déglu laa ci xam comprendre yu bëree bëree bëri Laay Wade ci boppam il a été nu mu tudd disqualifié même sur le euh, scène euh, sur la chaîne internationale boo gisee euh, léegi mën ñu ko confier ay ay ay mission ci en Afrique ak ñi ta Thabo Mbeki di def ak ñi Obasanjo di def ak yooyu noonu dafa am code de crédibilité boo xam ne les grandes institutions il faut nga am ko pour mën a nekk kii nu ñu koy waxeeti un représentant sur sur sur sur sur le continent mais loolu noonu daf ko perte parce que euh, euh, à cause de de de nu mu euh, kii bi ni ñu ko 23 juin boobu noonu quoi même Blaise Compaoré ñi ngi wax problème boobu noonu bon est-ce que comme ni ko ni ko ni ko le président français la Hollande waxee ne dañ ko doon proposer pour mu pour mu bàyyi comme ça mu nekk un représentant quoi ñu jox ko poste sur les instances internationaux mais gars ils disent que ne il peut même pas avoir plus avoir ça parce qu'il est plus crédible pour te dire que y a des choses yoo xamante ne bi une fois que nga def ko dans ta vie da lay topp tout le temps tout le temps tout le temps ni Abdou Diouf demee démocratiquement moom moo tax mun ñu jox ko beneen post boo xamante ne bi euh, mën na responsabilité la quoi il faut que ñu xam loolu noonu lay waat dafa tax boo dee déglu les euh, yenn les débats que les gens font euh, nu mu tudd spécial Burkina ngay comprendre lu bëree bëri que ne affaire yi am na similitude ñun bu ñu nekk ay fanatique rek di défendre lay waat comme ça dafa am. tu loolu laa doon wax en parenthèse léegi nag li ci des moom mooy il faut que ñu xam ne gis nga gis nga amaat euh, les réseaux sociaux yow yaa ngi koy wax sànq ak euh, nit ñi euh, dañu dañu jàng léegi ak immigration bi nit ñi def di xool yeneen dëkk yi ni muy marché ak cp yi as ak ni mu fi nekkee tey ba nga xamante ne bii kenn mënatul benn njiitu réew mënatul tirer ci population am yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne bii tey dafa andi beneen changement ci mentalité nit ñi il faut que ñu xam ko te les révolutions depuis le temps euh, euh, la parole du peuple dafa mos a euh, nekk devant la parole nu mu tudd des forces vives d'une nation la révolution française il y avait quatre quarante mille morts la kii 1917 la révolution russe noonu am na yenn révolution ainsi de suite ainsi de suite mais lépp le peuple dafa dafa dafa gagné pour te dire que les révolutions c'est une force boo xamante ne bi li ñuy wax c'est l'arme des des pauvres c'est l'arme des opprimés c'est l'arme des oppressés caabi nit boo ko boo ko boo ko kiiwee najee ba yenn yi rek dafay fipp te bu fippee mënuloo too ko dara caabi loolu lool benn la ci question bi ma laaj euh, moi je dirais que ne li ñu naan euh, les hommes partent et les institutions restent il faut que ñu am ay nit ñoo xamante ne bi il il il faut que ñuy comporter comme des hommes d'État mais pas comme des hommes politiques il faut que ñu xam ne ñoom ils ne sont plus éternels maintenant il faut que ñu xamante ne bi euh, yow li nga bañ a teg tey mën na nekk li lay gaañ suba La preuve, Abdoulaye Wade et sa famille. Tu as vu euh, kon autrement dit que ne moi je dirais que ne les présidents dañu war a jàngat ci ci ci lii xew en Afrique xam ne les temps ont changé tu as léegi am na loo xamante ne bi xel nangootu ko je te dis une chose ma la li xew Burkina Faso mais li nar a xew euh, euh, Cameroun li nar a nar a xew Guinée équatoriale feneen ak feneen question de temps la rek mais tôt ou tard dinañ yegg foofu noonu Bon, je dirais que malheureusement, peut que on a eu des 27 morts, des, euh, des 30 ans, mais ces pays-là, moi, j'ai peur qu'il y euh, euh, les Nations unies, négocier avec ces dirigeants-là, à ce que nous l'aimons. Comme les temps ont changé, et puis tôt ou tard, c'est moi je dirais que ne Macky ci boppam il faut que mu xamante ne bi tamit ou bien no dirigeants il faut ñu xamante ne bi tamit c'est c'est c'est des euh, des institutions fortes tu as vu euh, c'est la démocratie qui fait ni du ñu yegg ci ci oppression yooyu yëpp quoi moi je dirais que lool loolu bu ñu ko amul du ñu euh, tôt ou tard mën na éclater waat suba ba je dirais que gis nga régime bépp ci am dans le monde régime lu mu bon bon bon bon am na nit ñoo xamante ne ça leur régime lu baax baax baax am na nit ñoo xam ne ça leur profite mais le problème en est que nag ça qui la majorité ou bien la minorité si ça profite la minorité ça c'est un problème si ça profite la majorité ça c'est bien c'est ça qu'on appelle la démocratie pour que ça profite la euh, pour que majorité puisse en profiter il faut que mu am ay institutions yu fortes nañ nañu nañ jéem a xool euh, kii dans l'avenir ces pays là yi nga xamante ne bii ñoom euh, euh, ñi ngi dund dund gu ni ñu koy waxee ti dund ak yelleef doomu aadama bu am bu am doole amul lenn lu dul démocratie amul lenn lu dul euh, un pouvoir qui est là nu une loi qui est là pour tout le monde profitable pour tout le monde mais on peut pas continuer sur ça bah je dirais que c'est malheureux ça, ça s'est passé à Ouagadougou mais ça n'a pas encore changé chez nous il faut que ñu xam loolu noonu il faut que le président essaie de bañ a déglu ñu koy yooyu yëpp quoi tous ces gens là ils l'induisent en erreur tu as vu moi je dirais que ne c'est vraiment un truc boo xam ne euh, yegg nañ fa un peuple ça grandit un peuple ça évolue un peuple ça ça comprend tu as vu peut-être bien les révolutions dans le monde dans le temps les Français ak yooyu noonu noonu y avait beaucoup de morts c'est les années mais ñun avec le temps on grandit yegg nañ foofu noonu ñun tamit et puis c'est sûr que ne on va demander plus ce qui est démocratique tout ce qui touche à la démocratie boo ko yokkalul tamit doo ko wàññil mukk mukk mukk il va demander à ce que nga yokkal ko par force parce que c'est ça qui fait que c'est ça qui euh, fait sa force c'est ça qui fait sa ténacité je dirais que tu as parfaitement raison il faut que euh, nos dirigeants essaient de comprendre essaient de tirer des leçons de ce qui s'est passé et puis tamit euh, jéem a pour projeter le pays dans une démocratie durable Euh, ngeen baal ma loolu rek laa doon am lu ma ciy wax waaw merci. jërëjëf euh, Ndiaye Mamadou dañuy commencé waat non 614 balaa ñuy commencé waat ci depuis euh, Diop Mamadou 614 salaamaaleykum. 600 646 ah, wala. 64 ah 646 la ma ne 646 waaw salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam Amath. waaw kooku Babacar. yaa man la Babacar waaw. ante bismillah Babacar lan nga xalaat ni li xew Burkina noonu la mën a impacter suñu doxilun ak sunu téyeem réew. waaw ma ma ni ma ko jàngatee ñun sax moom ñun moom mbir mi du du lu bees ci ñun ñun sénégalais lu mel ni amoon na ci ñun mais man ni ma ko gisee mooy euh, maanaam population ñoo am fu ñuy toll am lu xew yëkkati leen mën naa dépendre ci ñàkk nga ci nguur gi mën naa dépendre mën naa dépendre ci nga bañ a yàgg ci nguur gi euh, bu ma bi ma koy jànga maa ngi koy jàngate George Bush bi muy daanu dañuy indi Obama boobu dëkk bi am na fu mu toll ñaari mandat de def mais population bi am na lu ñu doon dund loo xamante ni gën nañ koo dund moo xam ci côté ñàkk liggéey moo xam ci côté euh, euh, lu cher loo bëgg jënd moo xam moo xam moo xam rent yi moo xam euh, business bi di daanu ñu doon am liggéey perte liggéey nit ñi amatuñu liggéey population bi toll foo xam ne dañoo doyaloon ci waa ji daal di taxawu taxawu Obama mu doon loo xamante ni àdduna bi fépp ku gis te boobu George Bush deux mandats la fi def kon léegi dafa am lu population bi dund loo xamante ni moo leen di yóbbu ci lenn li te man fi mu toll nii may wax ak yow dama ko sentir Sénégal parce que bul fàtte na Sénégal ñu ngi ci fi mu toll nii réforme ay ñu ngi ci réforme lañ lañ nekk. réforme boobu ñu nekk. réforme bi ñu nekk fa ci lañ nekk ñun njëkk nañ koo indi muy assises nationales yi Macky am nu mu ci wax ne da koy seetaat am na am na affaire bi ñoo xam ne eggul woon ci ñoom da koy yóbbu ci ñoom am na benn groupe bu mu jël jox leen affaire yi ñu wàcc sur le terrain wax ak nit ñi def li ñuy def indilaat ko biñ ko indilaatee ba léegi ni mu waxee rafetlu wu ko lim li indi mooy def ne moom day seet li mu ci mën a jël max waxul damay seet li arrangé pays bi daf ne man damay seet li ma ci mën li ma ci arrangé ma jël ko doxal ko mais waxul réew mi moom boppam la wax ba pare jël ko teg ne kat du ma ko defagum sax léegi damay bàyyee ba ca kanam ma doog koy def daal koy teg dem di dox ci yeneen yitteem yeneen yitte yi daanaka boo koy xool ci nu muy def ba faluwaat ci la nekk ba pare jël réforme yooyu teg ko de côté te ñun ñu ngi koy xaar ci loolu kon ñun lii am tey Burkina ñun fi mu toll nii dañoo nekk ci ci yoon wi parce que xamaguñu lu ñu waaj yi indi parce que xel boppam la bëgg a demee kon man gis naa ne lii xew bëgg naa ñun mi ngi ñuy yoot ñun mi ngi ñuy yootaat bokk mi ngi ñuy yootaat kon nag lii moom defe naa ne xaw ma ndax dana ci jàngam déet parce que man jàpp naa ne politiciens yi lu ñëw rek dañ ciy gën a lëndëmal seen seeni bopp parce que waa ji bu fekkoon ne gis na li xewoon senegal lii tey dana ko yee le président Burkina defe naa loolu mënoon na ko yem mais gis nga yeewu ko kon man mënu ma gëm ne sax lii dina yee Macky parce que pouvoir moom dafa mel ne day indi dofloo. baax na. léegi nag ma mhm. ma bëgg nag ñu bàyyi xel ci loolu ñun baa ñuy génn di dem ci beneen dëkk suñu dëkk situation bi mu toll ñu wax ci lii ñëw ëllëg parce que ñëpp a ngi toog parce que dëkk ba benn nit dana bëgg a faju mu të nit eh, eh, da ngay bëgg courant muy metti nga bëgg ndox muy metti nga bëgg sécurité doo ko am. te ñi la ñi la yilif loolu lépp am nañ gouvernement bi ñu ngi dund ci loo xam ne yow lii la ñàkk yëpp yaa ngi gis bi am nañ léegi gaa yaa ngi toog rek di muñ loolu di ko kaas ci rajo ku nekk nga koy dégg léegi nag suba réforme yi génn mu am nu mu ko gisee rek la la population bi doon muñ daal koy génn wane ko benn yoon jaaree ko foofu kon war nañoo wax su suñu situation ni muy doxee fi mu toll balaa loolu di ci am ëllëg mais ñu ngi ci yoon bi loolu laa bëggoon a leer lu amaat ba ci kanam. Euh, Babacar depuis New York di ko jaajëfe baax a baax dañu commencé waat euh, ci Diop euh, Mamadou Diop Mamadou ndax jàngat nga ni war na mun a am loo xam ne suñu dirigeant yi dinañ ko xool ci lii xew foofu ca Burkina gën a dëgëral suñuy institution gën a dëgëral suñuy démocratie wala jàpp nga ni ñoom dañoo jàppoo rek ni ñu ngi ci yoon bu baax bi te dañu continuer ni ñu commencé woon. waaw wax nga dëgg Amath affaire bi loolu lu solo bon ma nuyu soxna Amar sànq eh, soxna soxna Ana sànq ni ma doon ni doon nuyu boobu dama coupé sama kii bi maa nuyu bu baax quoi di ko di ko di ko di di ko sant. alors euh, Amath benn parenthèse mais di wax ne kenn warul def parallélisme entre li xewoon 23 juin ak euh, li xew Burkina Faso mais loolu yëpp sénégalais yi la xam nga luñ liñ li liñ ne fang kenn du ko jël mais le 23 juin ci la Burkina bi ak africain yu bari inspiré wu ñun ñu ngi déglu information déglu rajo yi. même Y en a foofu ñoom ñoom ñi nga am le balai citoyen la ñu am y a rapport maa ngi ko dégg RFI tey muy wax te ñoom bi ñu bi ñu bi bi waa ji defee de bi waa ji defee déclaration ñoo ñoom waxatuñu sax affaire déclaration léegi na fi jóge la ñu wax te boo gisee bi ñuy bi dem euh, assemblée boo bëggee mën naa la ko posté ci ngi ci Facebook bi ñu dem assemblée comme ni waa Y en a marre dañ dañoo lever di koy seen hymne gars yi taxaw mais dañ gars yi leen di mujj bàyyi ñu jàll c'est la même chose que li xewoon 23 juin li xewoon 23 juin Abdoulaye lu mu mais car xam ne il est bu ñu kenn fii naan alors li yàpp paralysme il faut que ñu def paralysme loolu moo xewoon te waa Burkina si la ñu inspiré wu même boo déggee information yi ñëpp da ngay wax ñu naan exemple Sénégal lañu jël mais les Sénégalais dañu dañu fier ci loolu kon kuy politique na nga politique sa politique mais gis nga peuple bi yeewu nañu yeewu boo xam ne kuy politique nag nekk sa politique rek mais ñoom bis bu ñu waree faj danañ jóg faj te kenn du ci man dara bon pour ñëw nag ci euh, jàngat bi ci Macky war a jàng man li may wax daal mooy dañ ko fal fal bu rafet te biñ koy fal dafa amoon 23 juin bu xewoon 23 juin bi mu xewee ñëpp xamoon nañ ni alors que foofu la Ablaye Wade jeexali te bi Ablaye Wade dina déposé nit ñi son troisième euh, mandat la te waru ko am mais wax waxeet bi mais y' a y' a combien de personnes qui sont mortes là-bas ñu naan bi muy toog ci pouvoir bi reyul mais il a il a tué y' a de personnes y' plus de douze personnes qui sont mortes en tant que moom ci di xëcc troisième mandat te mënoon na bàyyi mag mu toll ni moom kon bu ñu kenn taxaw fii dañu wax dañu wax yu kenn xamul ñun li xew Sénégal xam nañ ko ñu sommes des sénégalais comme tout le monde alors Macky Sall daal li ma koy diggal mooy na ci jàngat jàngat bi mooy lan fal nañ ko fal bu rafet léegi nag réforme bi na ci dem jusqu'au bout. institution yi ku ci nekk am si autonomie libre législative bi euh, euh, ak justice bi loolu daal laa koy wax na ci na dem ci réforme yi jusqu'au bout bu ko defee Sénégal am institution yu solide une bonne fois pour toutes bu nga ne bu ëpp élection amee képp ku ñu falati doo fi nekk di xalaat sa xel di xalaat di jalgati parce que politiciens yi ñoom ñëpp seen intérêt moo fi tax a jóg parce que amuñu métier koo ci xas ba fal mi ngi taxaw di la preuve sept yi mu wax ne da wàññi def ko cinq am bëgguñu ko parce que xam nañ bu fi yàggee dafay seen seen poste moom mooy remplir loolu la ñuy calculer ak carte yi ñu leen jox ak salaire beeg euh, ay ay 1000 essence ñoom loolu la ñuy calculer calculer ñun problème mu population bi ñu nag li ñu gën li ñun li ñu bëgg mooy que ñu am démocratie am institution yu solide xam ne képp ku fi nekk di nga teg réew mi ci yoon boo liggéeyee ñu ñu bàyyi la fi boo liggéeyee bu sa deux mandat mate wala bu sa benn mandat ñu jëlee la fi ñun la ñu bëgg ci Macky Sall nu mu gaaw gaaw gaaw na def référendum ñu defar ne Sénégal dina tegu ci yoon bu élection ñëwee képp ku ñu fal nga teg réew mi ci yoon ñu bañ a amati benn problème mais bu fi nekk di calcul calcul politicien aussi la même chose mën a répété waat ma foofu ngeen bal ma jërëjëf Diop Mamadou Soxna Anna allo. allo waa Amath. waaw euh, euh, kon kii dafa kii bi baax na léegi Mor affaire dafa baax léegi. non non. Mor. waaw baax na wa Ahmed Baye Mor mu acca bismillah bismillah Mor bismillah Moraan li xew Burkina ñun africain yi yëpp ñun ñoo ko war a mani li xew Burkina africain yi yëpp ñoo ko war a rafetlu di si kontaan ndax euh, wane na ne Afrique tey màgg màgg nañu Afrique màgg nañu ko bokk na ci li xam naa Blaise moo la ëpp bopp tey ba danaa bëggul dégg say <laughs> euh, kii <laughs> waaw Blaise moom tey bëggul dégg vraiment ah tey moom bëgg na dégg ñëpp ba mu des yow kon daal da ngay da ngay da bàyyi noonu rek ba sam prochain euh, bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ci Idrissa Seck ñu invité la incha allah parce que tey affaire bi bañ na sa côté quoi vraiment <laughs> waaw essayé waatal tuuti Mor day jékki-jékki rek taxaw ah, quoi waaw non mais c'est-à-dire que benn instant da ngay wax mu leer mais boo commencé développer dafay mel ni da ngay soriwaat micro bi wala affaire bu commencé dagg quoi je comprends pas je sais pas ah, muy pouvoir bi fekk xal aussi pouvoir bi si loxo population population bi nag boobu la dañ jëm la xam xam ci wax ni dañ fexe di jeex fexe nag léegi képp fi fal problème yi dépassé ko nan la ñuy def ba président bi mën a liggéey nan la ñuy def ba président jë man ko yooyu moo ñuy xam li moom naa kon am solo avec l'espoir nga xam man faa yaakaar ne ba ni ngay deewee doo ko génn xam dañoo dañoo am sa kersa rek waaye dégg ñu la de non non tey moom sa waa moor dañoo am sa kersa rek mais dégg ñu la <laughs> <laughs> xam naa dañ koy ñaan ne vraiment bëgg nañu vraiment ku pertinent la mais tey malheureusement euh, computer moo ko def défaut vraiment mu ngi jéem a développé mais ñun ay bruit rek la ñuy dégg quoi te loolu du euh, neex ci nopp ñi nga xam ne ñooy daal di déglu kon moo dina comprendre jégal ñu euh, yàgg naak ñun ci rajo bi soxna Anna est-ce que di nga jàpp nii dina am benn nouvelle vision bu sunu dirigeant yi Sénégal foofu am bu ñuy xew xoolee lu xew Burkina ndax Euh, dina leen permettre xam nga ñu ñu gën a permettre Sénégal am une assise institutionnelle beaucoup plus solide pour lii fa am lii amoon trois juin bañ fa amati. Euh, waaw Amath xam nga par exemple ñoom bu ñu muusoon euh, dañu war dañu war a am nouvelle vision xool nag ni vraiment affaire li amoon démb mënutul am tey mais xam nga suñu président Afrique yi muusu sàcc lañu am ñoom muusu naka la ñuy toogee naka la ñuy rawalee ñoom loolu xam nañ ko la preuve ku ci rawale ba pare pour nga indiwaat ko c'est un problème doo ko gis mais su ñu amoon jom lii nii daf leen waroon yee mais actuellement ñoom li ñuy wax rek mooy excès gul sama dëkk bu excès nañ ko gérer am nañu temps pour continuer def lu ñu neex rek mais lu ñu war a xam rek mooy ñoom ñëpp ñoom ñëpp Afrique ci dëkk yi ma ko war a wax sax parce que am na dëkk yoo xam ne vraiment ñu ngi góorgóorlu mais dëkk yi ma ko war a wax dañu war a xam ne léegi bii dootuñu toléré lu doon am yu njëkk yi ñuy toog ñu naan ay élection yi génn na résultat yi génn na waa kii gañe na ñëpp xam ne kii gañewul loolu muntul am parce que même su amee sax léegi yow gañe nga ba pare mais dañ lay génne la force parce que xale yi ci boppam ñoo ko dul ñoo ko permettre dul mu am euh, suñu ay président dañu mel ni ñu yor daara wara par exemple ñu yor ay kër ndax da ngay gis président bu dem doomam ñëw man loolu fi ma koy gisee mooy këru sëriñ yi ñu topp hiérarchie maam papa dem na taaw ñëw après taaw rakku taaw ñuy dem di dem di dem ba mu jeex ñu commencé ci sët yi parce que loolu kenn indi fa histoire xam nga mosuloo gis rek manifestation am ñu ni non parce que Tiwaawan sëñ bii dafa dem keneen ñëw wala Tuubaa kii dafa dem parce que loolu ñun xam nañ ni noonu la war a demee tey bu ñu nee tey kii dem na keneen moo ci topp loolu hiérarchie la moo fa am ñun nag waru du demee noonu parce que république la dañ leen di élire au suffrage universel nag universel laa wax de ñu ñëw toog liggéey comme ni ñu ko waxee suñ ko mënul ñu ñu génne leen par exemple ñu ñu folli leen mais mënu leen ñëw toog rek gouverner gouverner ba mënatu leen yéen bi ngeen di jël nguur bi ñu ci juddu woon fu mu nekk nii am nañu ay sët Afrique rek nga koy gisee nga ñëw toog soo paree sa doom ñëw sa doom bu paree léegi dem nañu temps yi ñu ngi naan ay jabaru xaw ma ban président mooy waaj mooy bëgg am ay ambition léegi ñoom bu ñu demee sax ba si ñoom seen doom yi jeex léegi jabar yi nag ñooy ñëw après ñu defee ñu koy defee noonu lu ridicule loolu Afrique rek nga koy gisee donc gis nga dëkku jàmm moo amatul léegi parce que li doon am temps yu njëkk yi moo mënatul am Sénégal bi mu nekkee dëkku jàmb Casamance biir Sénégal la bokk nit yéen fay rayante kon mënuñu wax dëkku jàmb la cour d'assises mu nga Sénégal dëkku jàmb du am cour d'assises parce que kenn du def lu bon kenn du def dara lépp ci jàmb lay nekk événement naar yi Sénégal la am te Sénégal lañu naan dëkku jàmb la Assane ak Ousseynou ñu ngi Irak te foofu jàmm amu ko Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ku ko gën a ngi al mi ngi mi ngi Maroc te tey ak lu lépp lu mën a am ci àddina rek mooy moytul ma peuple boo xam ne dañu frustré parce que suñu frustré tey lii rek ngay dégg donc man instant bii nii li am euh, Burkina lu bees man xaar naa ko ci dëkku Afrique yëpp pour pour mën a noppalu ko su amee Gambie du ma bett su amee Cameroun du bett parce que génération bu bees ñoo am donc shame on suñu président yi bu ñu wax ay Barack Obama ay noonu yaadaamaar ñi ñu leen financé woon mais dañ leen war a financé parce que ñëpp dañu jéppi parce que ñoom bu ñu waree dem dañuy dem ci jàmm ak salaam en paix ñu jox leen seen garde corps jox leen li ñu yellool jox leen seen ay salaire ñuy dox nag di dox ci biir dëkk bi di xool nit yi mais ñun suñu président yi ñemewuñu nekk ci biir population bi di dox parce que dinañ leen ko dóor ba ñuy bëgg a dee parce que liggéeyuñu lu baax Obama su paree mun na génn di dox ci mbedd yi di doxantu mais fu mu nekk nii na Blaise Compaoré jéem a génn Burkina fu mu nekk nii mu xool ba pare suñu jugee nag naan ay noo non ñu génne seen loxo kenn du fa génne seen loxo yaanaa maa su fekkente ni Amérique moo leen financé thank you parce que dañ doon dem pour une bonne cause donc merci ci liñ leen financé parce que dañ doon dem pour dimbali ay nit yu sonn les gens sont fatigués pour nekk ci benn dëkk munoo lekk munoo naan munoo liggéey yow balaa ngay liggéey dem dëkku jàmboo balaa ngay lekk dem dëkku jàmboo balaa ngay am courant nag c'est it's par exemple nga toog deux jours gisoo courant gisoo ndox gisoo dara ba pare ñu bëgg toog rek bëgg a ci nguur gi ay trente ans quarante ans mais ñi shame on ñoom ñëpp waay merci. jërëjëf euh, Soxna Anna Soxna Ancu. allo Amath. na nga def waay. angi sant maa ngi sant. bismillah. avant ah, pour conclure ah, ndax am na solo que président bi tirer ay leçons wala bañ a tirer leçon parce que xam nga nguur dafa doy waar parce que Macky ay leçon moom amoon na ci am pagaay balaa balaa la 30 octobre ndax fi Ablaye Wade di jaar mu ñëw jaaraat bëgg jaaraat même chose. si Karim Wade ñu ñëw bëgg ko imposer au peuple sénégalais moom tamit bu ñëw di imposer famille wam kon xam nga leçon moom ah ñu jox la sa leçon ak ah, nga jàng sa leçon c'est deux choses différentes les leçons y en a tout le temps mais c'est ça n'a aucune importance que Macky jàng na leçon mag bañ a jàng leçon parce que peuple sénégalais ñun soxlawuñu ku ñuy jox leçon parce que ñun ñu nous sommes les donneurs de leçons en Afrique ñëpp xam nañ fa xam nañ fa sunu xarañ su ful ak sunu fayda kooku ñu a sonal ñun suñuy ay yàlla amu fa dañ lay dem morom ñëw Macky Sall s'il apprend sa leçon ou pas ça c'est pour ça pour sa legacy mais xam nga président africain moom xamuñu luy legacy xamuñu li nga xam ne da koy bàyyi par exemple comme euh, euh, Reagan wala euh, Roosevelt suba ñu ñu tagg la fekk nekkoo fa fekk dee nga sax ñoom xamuñu loolu ñoom lekk bi seen kanam lay nekk ñu jiiroo lekk lépp jël seen famille jox ku ci lekk dafa ñaaw dëkk boo xam ne nit ñi ni soo dans la misère yow nga jël di ko di ko di ko di ko di ko euh, diviser di jox say famille di jox sa jabar di jox say doom ñun loolu la xam Afrique loolu la xam c'est les despotes mais Macky Sall aurait pu aurait pu être différent mais xam nga bi affaire Burkina Faso bi waxee man wax boobu laay jàpp du ma jàpp deuxième wax bi bañ ko laajee mu naan non c'est-à-dire euh, Blaise pour ce qu'il représente xam nga yow ça veut dire que yow li Blaise représenté foofu yow bëggoo ko sax représenté mënoo ko sax représenté kon déjà tu es inférieur à Blaise Compaoré te quelqu'un bi nga xam ne yaa ngi ko inférieur ni ñu ko def kon yow sa bos moom su ñëwee dina gën a metti ça n'a aucune importance Macky oh, na def lu ko neex mais jour bi mu waree dem wala jour bu mu waree def référendum na ko def comme il faut parce bu ko def deful Amath Diouf la ko fay fekk mooy raw la fekk Ablaye Wade ndax Ablaye Wade il a cent vingt ans am na loo xam ne nit ñi dañ ko koy rusee mais Macky Sall cinquante ans rek la am kon mënoon na moom euh, redresser la barre mais il a choisi une autre xam nga il a il a choisi façon de faire c'est son problème mais le peuple sénégalais comme li ma la wax ya a plus de jeunesse sénégalaise de jeunesse burkinabèse jeunesse africaine loolu amaat moo amul fu mu nekk nii a ay Facebook réseaux yi xale yi ils pensent de la même façon ils dansent au son de la même musique les gens la même chose kon ñoom ci boppam dafa nekk une jeunesse bu bu nekk nii benn jeunesse boo xam ne c'est la même jeunesse partout soo demee Ukraine c'est la même jeunesse buy bañ moo fa nekk que soo demee Burkina Faso au moins c'est ça les choses sont révolues le temps des despotes le temps des c'est révolu c'est fini les jeunes sont en sursis ay bongoog affaire yooyu ay togo c'est des gens qui sont en sursis nañ ko xam mais ñun ay bàyyi ko mu liggéey moom moom mooy wax joo xam ne comme li ma la waxaat rek amaat mooy wax joo xam ne soo ko waxee rek ñu xam ne yow tu fais partie d'une autre génération bàyyi ko mu liggéey mooy mag boo xam ne xëy na am na foo jàpp am nga sa sécurité mais xale yi nga xam ne amuñu liggéey lekkuñu naanuñu ñu kenn ñu liggéey ñoom dañuy liggéey ànd ak yow nga ñëw liggéey ñu jox la feuille de route mooy liggéey bi amaat ku tu t'en vas kon encore pour conclure que Macky comprendre na bañ a comprendre 2015 2015 xam ne nañ 2017 la wala 2019 2019 dégg nga 2017 luy leer dina leer parce que référendum moom dina amee nii mbaa mu amee ne merci Amath. jërëjëf soxna Aminata Diakhoumpa. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah Amath. waaleykum salaam wa Euh, maa ngi leen di ziar di ziar soxna Anta mu jógee mu daane léegi. di ziar ñoom aana ñoom ñëpp. delloo nañ la ziar bi. nangu nañ ko ba noppi delloo la ko. alhamdulilah donc en fait euh, amaat émission bi nga def tey vraiment c'est très important comme toujours euh, fi may dooree rek mooy prise de pouvoir wu Blaise booy xool ni mu jëlee pouvoir bi ñëpp xam nañ ka dégg nga Donc, euh, en plus, c'est avec la complicité euh, des Occidentaux. Ça, tout, tout le monde le sait. Il n'y a pas eu un seul chef d'État africain. Binga il a levé un doigt pour s'opposer à ce que Blaise à fait. À ce que tu saches, il n'y a pas eu. Donc, en ce moment, moi, je pense que il euh, y a une nouvelle histoire encore qui est en train de se dessiner, et, de, eh, dans le dans l'Afrique dégg nga muy euh, euh, Afrique du Nord ak West Africa c'est pareil jeunesse bi léegi ñoom ñoo xam dégg nga ñuy bañ ñoo ñoo ñoom ñoo impliqué wu bu baax a baax a baax ci li xew seen biir dëkk ñoo am bëgg-bëgg ñoo am lu ñuy bañ kenn mënatu leen imposé dara dégg nga donc euh, ils ont fait ce qu'ils avaient à Et euh, franchement, moi, je dis bravo à cette euh, euh, a commencé le 23 juin. Je pense qu'elle à, à, à, euh, a été d'une vitesse incroyable. Incroyable. Fini acte, je sais pas, 24 heures la durée ou 48 heures, mais ça maintenant moi le le euh, la question que je me pose mooy dégg nga si ki ñu teg il paraît que c'est une proche de euh, c'est un du moins de de Blaise te euh, population bi bëgguñu ko qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il va ah, est-ce qu'il lâcher prise ou bien ils vont prendre quelqu'un d'autre moi c'est une question que je me pose comment ça va comment ça risque de se passer de continuer et enfin pour qu'on peut pour euh, pour jeexal pour ne pas trop monopoliser la parole dégg nga xoolal kaawu Yaya Jammeh qui veut se proclamer roi et ça ça fait des mois que ñu ngi koy parloter et il risque de le faire et ça va mener où moi à mon avis ça risque euh, de faire aussi euh, une sorte de soulèvement populaire comme ça se fait dans, dans l'Afrique. Et pour en finir, je pense que notre président doit en tirer une leçon. D'une part, et d'autre part aussi, peut-être non. Parce que bu tiirewul leçon ci li fii ci jaar-jaaru Abdoulaye Wade mi nga xam ne 12 ans la def élu démocratiquement et qui a qui été son mentor je ne pense pas que kaw Blaise bi euh, war na tax muy tirer leçon comme ni ko soxna Anthi waxee léegi il s'est senti un peu inférieur à Blaise donc li dal Blaise lu ko raw moom bu daa bu jaarewul yëf yi ci yoon li mu diggoon bu ko deful la jeunesse sera toujours la et encore la je vous remercie Ama jërëjëf soxna amin amin ta jax di ko jaajëfee bu baax a baax a baax a baax di ci profité di nuyu Anna Abdoul Sy depuis foofu ca France nee na maa ngi ziar aujourd'hui les femmes sont majoritaires mais ne ko pourtant non ma ma galant rek bàyyi leen ñu teel a wax ñoom après soo a dem ci góor ñi loolu moo tax mais elles ne sont pas majoritaires Serigne bismillah ah, ndax jàpp nga nii war nañu am enseignement yu ñu ci jàngee pour suñu Sénégal. waaw man de li ma jàpp mooy enseigne enseignement bi population yi maanaam ñun africains yi population yi ñoo ko ñoo ko ci tiire mais bu dee suñ dirigeant yi duñ ci tirer dara dara parce que suñ dirigeant yi ñuy teg dafa am lu leen fay teg amaat man quand je sens bu ma déggee nit ku naan Blaise comme ni ko ak président africain yi ak occidentaux yi jàppe woon foofu Blaise lan la war a stabiliser en Afrique ba tax na ñëpp président yëpp naan Blaise dañ ko fa bàyyi woon parce que stabilisateur la lan lay stabiliser kooku duñ ko xool duñ ko daaj duñ duñ def seen demande buñ xoolee ñu tàmbalee ci tànjaan bañ koy daaneel dem ci Gbagbo jóge ci Gbagbo dem ci Kadhafi jóge ci Kadhafi dem élection yi Gabon Côte d'Ivoire la fa xewoon l'implication de la France kenn mënu ko génnee ci départu maanaam Thomas Sankara ba tey kon bu ñu dikkee di ñu wax ni ni d'accord africains yi ñun premier responsable yi ñun la parce que ñañ fay teg hmm, du ñu ay occidentaux ay africains lañ comme ñun c'est un frère moo lay poignardé d'accord kooku on naa ne conscient mais toujours dañuy delluwaat ci source bi Blaise Compaoré lan la doon estabiliser lool foofu ba Abdou Diouf jël ko def ko un fils dafa am yoo xam ni il faut ñu koy bàyyi xel léegi nag pour dikk ci li ci des am na loo xam ni bëggoon naa ko wax maanaam frère Diaw ñun bu ñuy def comparaison Ablaye wàdd ak Blaise amuñu problème de personne li ñuy wax mooy bafouage li nga xam ni yow ñu fal la ci démocratiquement ay carte nga jóg bëgg a changer loo xam ni ña la fa tegoon wóolu la teg la fa ànduñu ci nga ni danga ko awale yoon woo xam ni yow da nga ko soppi loolu moo daaneel ñi daanu ñëpp foofu la ñuy waxee mais néew ñu Abdoulaye Wade dictateur la war a reykatu nit la wala nangam ak nangam non loin de la léegi nag man jàpp naa ne ñun population yi ñoo ci war a ja am benn jàngat parce que njiit yi moom duñ ci jàng mukk Macky Sall ku jàpp ni dana def demi tour affaire bii mu foog ni fi mu toll ni kon kët il est temps réforme bi Sénégalais yi bëgg ma defal leen ko da nax sa bopp moom gis nga gun saayo bi mu jàpp maanaam buum gi téye xaj bi nangu du ko bàyyi moom ñëpp a yem population bi nag léegi ñoo ci war a def jàngat bu mag jàngat bu mag mooy lan institution yi loi yi nga xam ne fondamentaux yi nga xam ni hmm, mooy régulariser ak di séparer les pouvoir dootu ñu ñu bañ a may benn président temps wu nga toog naan instant bu ma neexee laa koy def déedéet parce que ñoom politique lañ tal taluñ ñun ñu ñun calendrier boobu fi mu toll nii fi ñu toll mooy population africaine yi bu taxaw ci ku fi dikk ñu ne la fii ngay aw institution yi nii lañ koy tëralee parce que ñun dong ñoo ko mën a xam mais buñ leen ko bàyyee ñoom duñ ko def jamais wala bu ñuy def it toujours dañuy xool la leen arrangé ñu def ko la nga xam ni moom la peuple bu jooy duñ ko def buñ delloo ci jàngat bi nga xam ni fi mu toll ni mooy proposition bi nga xam ni Ahmadou Makhtar Mbow joxe na ko te nga amoon fi l'illustre invité boobu fi ñëwoon ci mois dernier mu am ci réforme bi luñ ci dugaloon loo xam ne fii fi mu toll nii boo xoolee pays occidentaux yi en Europe boobu bari na loi yoo xam ni loi yu ñu koy tuddee loi du peuple yoo xam ni lenn proposition ba ci peuple bi lay jóge ndax peuple bi léegi dañuy am volonté ginnaaw député bi bu ma ko yebalee moom day daal dem jébbalu ci kee peuple bi day mën a organiser en mode bu amee vingt mille signatures mën a def sa proposition de loi ñu jëm ko jàllale réforme yi ci wet am na loi yoo xam ni ñoom nanguwuñ koo laal kon population bi man la ma jàpp mooy léegi fi ñu war a teg suñu tànk hmm, mooy di leen forcer sax ci maanaam vote yenn loi yi comme réforme institutionnelle yi ñu soxla fi mu toll nii Sénégal fi mu toll nii dañu waroon soxla ni mag yi xaaruñu 2017 wala veille 2017 pour ngay dugal naan ndax da nga référendum wala xamuñu foo koy awale parce que ba léegi ñu leeruñu fu mu koy awale da koy def ci saa si xëy suba dem taxaw buntu assemblée ni ko da ngeen koy voté man yaakaar naa ne population yi fi mu toll nii man li ma ci jàngat dafa ma jox joxaat beneen air boo xam ni danoo defoon 23 juin foogoon nii lañ doon faj faju na ñu toog deux ans et demi trois ans ndaxte lañ doon faj ñun ba ni dara fajuwu ci nit ki lañ fi jëlee. waaye institution yooyu nam tooge woon la tooge waat kooku daal wax dëgg yàlla man laa ci eh, eh, laa ci defaat jàngat beneen bi ci des bu ñu joxee information français yi ils sont doués Hollande première déclaration bañ ko laajee daf ñu Blaise fera ce qui est pour le mieux pour la Burkina Faso bam demee ba xam ne nag léegi fi mu toll nii les carottes sont cuites la doog a génne beneen déclaration mais ñoom toujours ñooy soutenir ces dictateurs là à leur pouvoir. merci maa ngi dégluwaat gaañ di remercier ñëpp. jërëjëf di nuyu ñëpp. sëriñ ma jël euh, Ndiaye PA yi comme moom jotagul woon sànni kàddoom ci waxtaan bi Ndiaye PA yi euh, la révolution démocratique du Burkina est-ce que mun na ubbi euh, bëtu sunuy dirigeant foofu ca Sénégal maanaam ndax mun na impacter d'une ah. benn manière que ce soit la marche de notre pays. waaw Amath euh, maa lay nuyu. mu lay fay. di ci euh, panel bi yëpp. en tout cas xam nga man euh, dama seetlu rek ni à chaque fois que bu benn événement ame Sénégalais yu ci bari dañuy daal di indi maanaam ay similitudes par rapport ak Sénégal. par rapport ak euh, surtout Ablaye Wade bi fu nekkoon te euh, boo xoolee maanaam ci cas bii euh, Sénégal yaakaar naa ni weesu na foofu dañ ko romb ci maanaam démocratie dañ ko romb ci maanaam peuple bi ci seen bopp seen yeewute dafa weesu foofu dama gis pays wax ni yëpp boo ko xoolee ba ci biir ñu si bëri seen chef d'état bu ñu jëlee kaaw Burkina Faso ay ay nit ñoo faatu mu soog a pouvoir ay nit moo faatu mu soog a dem mu génn pouvoir ak yeneen réew Afrique yu bari ci maanaam deret de seen pouvoir taxawee Sénégal 60 ba nëgën ni que ça soit Senghor que ça soi Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade kenn mënul wax ni euh, ci deret le pouvoir taxawee. loolu lan moo ko waral mooy peuple bu muir parce que peuple bu mûr euh, bien sûr euh, bu ñu waxee ñun suñu sëriñ si ñu ngi fi ñaanu sëriñ si parce que aussi loolu tamit euh, day réguler maanaam réew kon nag bu mbir amee bitim réew ñun d'abord bala ñoo sikk maanaam suñu bopp maanam di wax dañoo war a xal ñun xool fi ñu jaar ba fi ñu egsi et fi ñu jaar fi ñu egsi wax naa ko sànq moo di en matière de démocratie en matière di ci ni ci amee avancé ni ciy euh, euh, avancé benn réew avancé wu ko te loolu dama dégg nit ñi di wax naa ay le 23 juin mel Sénégal le 23 juin la judd non au contraire ñi ñëw au pouvoir 2000 ñooñu ñoo posé woon ay acte de démocratie ci ay jamono di ko ñafe di ci tëdd kaso di ci reyante ñu ci rey ay nit. ñu ciy dem di modifier ay ay ay bu njëkk da nga daan woote sans pièce d'identité sans identification sans isoloir te loolu loolu loolu euh, mën na yëngal réew mais ay nit ñoo fi nekkoon di ñafe ñi fi newoon ci pouvoir bi ba ñu am liberté ba démocratie dugg ba euh, maanaam nit ñi di dem ci élection ñu leen di identifier ñu di ñu dem ci élection rajo yi ñëw tout ça consort ba ñu am loolu. donc loolu c'est pas le juin ñi ñëw au pouvoir ñoo ko fe bien avant ñu ñëw 23 juin alors moi je me demande sax euh, le 23 avant le le 23 juin ce débat là bi posé wu ci Burkina Faso Blaise mi ngi fi 27 ans pourquoi ce débat là ñuy wax ni yëpp à l'époque posé wuñu woon débat boobu maanaam bi ñu jógee le 23 juin pourquoi songuñu Blaise Compaoré songu ñu Eh, yaay boni kenn du ko wax fi mu toll nii bala ngaa dégg ñu wax ci beneen ak yeneen il faut que dara xew fa donc fii yaakaar naa ni peuple Sénégal yi ñiy def eh, link bi entre eh, ay ay ay Abdoulaye Wade non moi je crois que ñu def erreur Senghor nekk na fi plus de vingt cinq ans bi muy dem dafa modifier constitution bi teg fi Abdou Diouf ci benn article personne n'a kenn waxul dara Abdou Diouf la même chose. Abdoulaye Wade ñëw na fi deux fois de suite élection mu gagné mu ne du jaar ci ay casam pour dem au pouvoir tey kuy lëkkale maanaam Blaise euh, mi dem tey. Ndiaye PA yi xam naa da nga jël émission bi en cours. Hmm. mais loolu parce que bon bàyyi naa la nga développé sax yàgg mais c'était la première partie de l'émission. Ah, léegi la deuxième partie de l'émission bi ñuy waxtaanee mooy ban hmm. impact la. ce qui s'est passé au Burkina mën a am dans la marche du Sénégal est-ce que mun a am ay euh, euh, enseignements euh, yu ñu ci jëlee pour consolider notre démocratie et nos institutions non si kii Amath xam nga la semaine passée maa ngi la doon wax ma ni la les assises yi fi amoon ñi ko doon dox pendant des années théoriser les assises ana fan la féete donc moi je crois au-delà du Sénégal Afrique la ñu war a wax ci boppam waa dama ni loolu Afrique dañ ko passé fu mu toll on a posé une question c'est-à-dire que euh, animateur émission nga xam nga émission dafa toll foo xam ne ci ay segment la ñuy toll on ne pas se bu ñu ñëw ci Sénégal delluwaat ci Afrique après dem ci Comore dellu si waat passé nañu Afrique parce que non la première question de moo doon est une nouvelle ère s'ouvre sur l'Afrique kooku c'est la première partie on a fini malheureusement kon nañu wax ci waxtaan boobu quoi xam nga est-ce que. en l'état actuellement Abant li ci Sénégal war a tiré moo di euh, damay xool ñi fi nekk ci seen euh, doxalin lay wax maanaam su fekkee ne dafa continuer nii la xew foofu kenn mënul écarter ne mën na am fii parce que les libertés yi seen nit ñi doon am en deux 2012 liberté yooyu amul amatuñ ko. interdiction de marche ñu ngi koy tere. je suis je mu def marche. je suis d' accord point côté boobu moom. ces interdictions à n'en plus finir. de ah, marche et de meeting moom. je suis parfaitement d' accord ci dara parce que peuple bi xam nga fële peuple bi moo jóg jële fi un président donc peuple boobu ñëwee maanaam ay loi ay affaire kii yëpp dafay dégage donc loolu tiréwul ci ay ay ay ay leçon ci ni ñuy doxal doxal doxalee doxalee nii lool nag su fekkee ni dafa continuer euh, ce parce que euh, am na ko wax sànq ba wax euh, euh, ba wax les assises mais li ci gën a jaaxal moo di le 23 juin ñi doon kaasal fii peuple bi maanaam bi le 23 juin passé ba ñu egg au pouvoir liberté yooyu ba nga xamee ñu ngi koy tere nit ñi mais kenn déggatu leen gis nga leen démb ñoo ñoo ñoo envoyé rajo yi ak télévision yi donc moi je crois que Sénégal li ci war a tiré te le président Macky Sall wax na déjà la semaine dernière. di wax ni war nañoo maanaam euh, ci ci Blaise boobu Jeune Afrique moo ko bind euh, war nañ ko maanaam daal euh, Blaise accompagner ko parce que pour que jàmm am ci Afrique ainsi suite loolu soo ko waxee nga nekk président en exercice dafay mel ni kon tiré wuñ ci ay leçons parce que buñ ci tiré woon ay leçons baat boobu du du dem léegi nag moom ñu ngi koy xaar ci. réduction mandat bi ba xam euh, cinq sept ans cinq ans bi ndax dina ci tirer ay leçons nii loolu bu ko defee li xew Burkina Faso est-ce que peuple bi mënuñu mënuñu jóg je pense que yooyu la ñu war a euh, Sénégal fii ñii fi nekk ci yor ci réew mi loolu la ñu jàngat boobu la ñu war a euh, jàngat avance. Ah, am na am na am na solo Ndiaye PA yi d'accord naa ak yow vraiment sur le problème de restriction des libertés de manifester de meeting et tout. Euh, depuis boobu man je vraiment dama koy dama koy dénoncer avec la plus euh, grande rigueur que ça soit. Mm-hmm. Euh, on est dans un pays démocratique on est dans un pays de liberté nous avons yoo xam c'est garanti par notre constitution alors je ne vois pas pourquoi. vraiment ñu war ci indi ay restrictions sur ce point là je suis vraiment d'accord avec toi mais par contre bu wàññiwul mandaam est-ce que le peuple va sortir là je ne crois pas je ne crois pas que le peuple puisse dire quoi que ce dinaa la may su ma la mayul aussi vraiment amul foofu mën a yóbbu si le président Macky euh, ne revient pas euh, sur sa volonté de réduire son mandat mais il est dans ses droits on attend 2019 ku ne bon wax waxeet sanctionné ko boobaa c'est ah, ce sera ce sera sera ce à libre de droit mais bon là je ne crois pas que ça soit euh, une raison pour que peuple bi génn ah pour réclamer quoi que ce soit mais rafetlu naa sa intervention alors nañu jël l'autre intervenant Baba jaw après ñu ñëw ci njaay Mamadou euh, ñëw ci euh, Babacar bu fekkee ni euh, Super Ngaka wàcc na ki am moom it ñu jox ko kàddu gi Baba Diaw bismillah. waaw sa jaman allo yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. waaw man de Ndiaye Paye dafa sàq dafa sàq mi sama lanc foofu laa bëggoon ñëw tuuti gis nga booy seetlu Sénégal li doon gëmloo nit ñi. dell gannaaw gu métti métti métti duma dellu siwaat ci yaay paay di mu wax institution yi sax booy seetlu dañ koo jalgati sax far parce que li fi nekkoon si néew nga xam ne ay droit acquis la ñoom dañ ko bafoué tey xoolal amaat barki démb lu xew au niveau des des des des financements des des travaux xoolal li ci Macky Sall def barki démb ah def ay réforme yoo xam ni li inter réforme boo xam ne bi pour mën a jalgati xaalis rek contourner ARP ARMPP lu ko neex la def ah l' acte trois de la décentralisation loolu def nañ ko ci kaw démocratie ak concerté wu ak peuple bi amul euh, euh, dafa xëy def lu ko neex ça c' est des actes antidémocratiques donc ñun buñ ñun bañuñu Macky sàll mais dafa am ay acquis yoo xam dañ ko amoon moom dafa ñëw dégg teg ci tànkam du mu ci dellu siwaat liberté dem de manifester ak yeneen ak yeneen loolu moom gis nga dem di tera ay wax sa xalaat ak. ay wax sa xalaatak ak Sénégal yi dañoo bari wax ak nangam nangam yooyu lu mu doon c'est la dictature nit bu amee acquis boo xam ne c'est démocratique da nga koy bayee Macky Sall leçon yi ñuy wax jolu ko jolu ay leçon euh, c'est pas pour rien qu'il était l'ami de de de de Blaise Compaoré ah bettuñu bettuñu dégg naa nekk na way suñ président yi français ñu fi nekk mais on n'a jamais eu un président depuis Senghor ba tey ah Macky Sall moo nu retourné waat trente ans en arrière tey amaat pour jox la un exemple rek tey pour la wane ne Sénégal actuellement li fi nekk jalgati gi fi nekk amul dara dara lu ñu fi teen leçon je te donne un exemple prends le croisement de Cambérène jusqu'à Cité Lobor Fall sept stations service sept laa la wax dans un rayon de un kilomètre pour vous dire que c'est une mafia boo xam ne ñoo fi nekk di gouverner Sénégal dañ fa wax nag waaye Abdoulaye Wade day jaay mais ñii waxuma la ay teer ay ruq sax dañuy jaay léegi partout li wax je parle sous le contrôle de Ndiaye PAI fi jaar xam ne li ma koy wax sept stations service dans un rayon de ko a bokk seen parti kon noo mën a waxee sous <laughs> a bokk parti noo tamit. parce que fee jaar fi jaar yow xam naa yow jaaroo fi moo tax ma la laaj wax loolu parce que su li ma wax parce que moom li wax xam na ko. mais yow bu fekkoon ne yaa ngi jóge jóge nga États-Unis ñëw fii mun naa la mun naa la jël un exemple la je parle sous le contrôle de Amath Diouf parce que jaar na fii gis na fi parce que ñi fi nekk ci antenne bi wóoru ma ne ñoom jaar nañ fii te moom tous les jours dafay jaar di gis li may wax sept stations service dans un rayon de un kilomètre États-Unis danañ nangu lool ah pour conserver euh, les bien-être de l'environnement mettre les populations en danger parce que y a une mafia qui y a que l'argent qui moo leen intéressé fii ci dëkk bi Hmm? tout ce qui est acquis démocratique il s'en fout gis ngeen acte trois bi nu mu ko defaree gis ngeen léegi nu mu loi yi fi yiñ fi tegoon contrôle financement d'état yëpp daf ko détourner indi affaire yi ko neex gis ngeen ce qui s'est passé avec Cheikh Amar il a dit hmm? Macky Sall moo ma jox marché bi léegi nee na ma amul problème yaa koy yaa koy jël loolu loolu ça c'est ça c'est démocratique là ah alors que quand Abdoulaye était là le contrôle était beaucoup plus sévère ñun foofu la ñun ce qui s'est passé au Burkina Faso képp kuy africain digne da nga ci ànd ce qui s'est passé au 23 juin y avait des sénégalais yoo xam ni gëmnoo lañ benn affaire boo xam ne bi ànduñu ñu taxaw xeex ko démocratique démocratiquement loolu c'est tout à fait normal mais le problème mooy après qu'est-ce ont eu par rapport ak li ñu leen doon raconté ak par rapport li fi nekkoon ñu balancé xool lan moo ci tane morom ma mais y a total sur le plan économique rien ne marche pas xam nga bu ñu demee barki démb la ñu tax bëgguñu rey ak Dewing Bensines waaw Sénégal raw na dix pays alors que yow le pays en guerre Mali moo la raw Gambie raw la ah lu ñu def lu ñu bluffé le peuple sénégalais bi la ñu nekke nekkee démocratie dara amu ci nga jàpp des opposants interdit leen de cherche de sortie du du territoire presque pendant deux ans amul dara loo tekki loo xam ne lii lañ def xëy nga xëy rek nga leen bu leen génn ci réew mi amu leen droit ah te ñuy sénégalais war a dem bitim réew li jënd seen affaire nga xëy xëy def la leen neex lewe seen immunité parlementaire ñu képp koo xam ne kii àndut ak yow rek ñu menacé ko dugal ci kaso bi ndax lan kii potentiel adversaire de demain mun na ma créer problème ça c'est quoi ça c'est une dictature dictature la loolu boo koy comparé ak li fi Blaise Compaoré nekkoon benn lañu dem fii ba ba ba Côte ba Burkina ne leen Sénat ah, baax na seen réew. ça veut dire que lui il était là pour pour pour renforcer le pouvoir ça m'a pas surpris tey bu ñu toogee fii ñu ne campagne am ça a été financé depuis le Burkina ñu ñi ñuy gëmloo ay jaaykatu keccax yu milliardaire ñoo ñoo ñoo financé sa campagne alors que c'était l'argent de Blaise Compaoré par l'intermédiaire des des des des des trafiquants véreux yoo xam ne Blaise Compaoré moo jël xaalis di leen ko jox ñu koy dugal fii di di di soutenir Macky Sall avant. te tey gis nañ ko fii des conseillers ñoo xam dañuy conseiller Blaise Compaoré pare proche de Macky li may wax ni kenn mënu koo weddi yaa quelqu'un qu'on dit milliardaire qui est de Blaise Compaoré xam nga fi mu toll nii heureusement Sénégal gi la ko fekk bi affaire bi am parce que il était parti sur le euh, ci tournée Macky bi mu doon def dans le nord mu jógee Burkina ka ñëw fi te xam naa ne guddi yi du dellu Burkina hmm? ñun li ñuy wax dañ ko xam amuñ dara lu ñuy inventé c'est que nag su notre malheur dañu jor suñ responsabilité daan na ay on est des militants du PDS malheureusement dañuy ah, ñoo xam ne dañuy ñëw bu jaa waxee ñu ne waaye kii sonn alors que ñoom ils sont plus pires que c'est des militants de l'APR mais ils ne veulent dévoiler hmm? ça c'est de l'hypocrisie quand Diaw parle on dit waaye il parle que de la politique alors que yow boo ñëwee waxu politique rek jaww rek ngay xaar ba wax politique nga tontu ko alors ko doo dem ci waxtaanu oustaz Alioune Sall doo dem ci waxtaanu Ablaye Diaw buy wax sport yaa que Ndiaye Paye qui moom ngay déglu wala baaba jaw ma tontu leen ci politique alors que suñu suñu taxe de politicien. jërëjëf jërëjëf Baba Diaw foofu rek laay maat quoi merci beaucoup. Euh, Ndiaye ba mu de bismillah. Euh, Euh, Baba Diaw yaakaar na dafa fàtte ne tamit xanaa Cheikh Tidiane si moom tamit conseiller kii la woon ni ñu koy waxeeti. Mobutu euh, euh, mm-hmm. te Abdoulaye Wade ministre la ko defoon. bon man li may wax moom mooy gis nga sept ans yi da wax wax ju am solo ci sànq amaat sept ans yi sept ans yi bu ñu confondre sept ans yi sénégalais yi ñoom ñoo ko fal pour sept ans kooku moom da ko leew doom bu ko neexee jël ko bu ko neexee bàyyi ko bu ko jëlee nag problème bi mooy c'est c'est c'est là où où problème parce que ba va dire que ni non dafa wax waxet te puis je pense que ni loolu moom dafa des ci boppu sénégalais yi ko kon pour mu crédible pour deux mille dix neuf dina dina dina ko dina di quoi léegi pour pour man gis nga euh, euh, nit ñi il faut ñu xam ne l'État c'est c'est le peuple qui fait l'État c'est pas l'État qui fait le peuple parce que nit ñi ñoom ñoom ñoo boole. jël euh, euh, un président et tout jox ko doole jox ko euh, les forces pour mu violencer leen jox ko ñu ko waxeeti droit pour mu pour mu taxer leen et tout ça quoi kon nit ñooñu noonu ñoom ñoo créer l'État léegi nit ñooñu daf leen dafa am lu leen lu état war ci ñoom quoi bés bu ko état wàccee muy démocratie car bu ko si c'est le premier bu ko violé à cause de quoi que j'ai l'armée avec moi ou bien j'ai la justice avec moi moi je dirais que ni automatiquement euh, euh, euh, état boobu noonu la justice de ko war a traquer war bàyyi quoi di dem di di di di violencer le peuple tu as ba je dirais que ne nit ñi ñuy commencé xam sen droit et puis tamit l'armée commence devient ci professionnel de plus en plus professionnel pour essayer xam lan moom mooy seen sen ay ci nu wall tudd wàll ak population bi quoi je vois mal que ne léegi euh, les armées surtout euh, au Sénégal tir sur sur le peuple parce que ils ils savent que c'est leur droit de manifester c'est leur droit de dire non dans la mesure où le président laal na constitution bi jalgati na constitution bi loolu moom il faut que ñu ñu ñu xam ko quoi bon man je dirais que ne euh, gis nga démocratie dafa baax ci réew démocratie moom mooy te réew ci pour mu dem ci ni ñu koy waxeeti ci des futurs meilleurs parce que socle la boo xamante ne bi euh, lépp ci lay toog justice bu indépendant <coughs> euh, euh, assemblée nationale bu indépendant liberté ñëpp am liberté ñëpp mën a nuñ tuddati produire nuñ koy waxee di développer des connaissances yoo xam ne day yóbbu réew mi kanam ci loolu rek nga ko mën a amee quoi mais sur sur la répression sur lu mu les interdictions yooyu boo ko defee ci peuple rek population rek da dangay da nga leen di leen di limité et puis tamit da ngay da ngay comme comment on appelle ça da ngay yee ci ñoom benn benn nu ñu koy waxee ci benn benn oppression boo xamante ne bii tôt ou tard day dellu ci yow tu as vu tôt ou tard dafay dellu ci yow te gis nga le peuple saa yu fippoo kenn mënalu ko dara te l'être humain n'apprend pas l'être humain lépp ci bopp bi quoi il suffit nga simuler ko benn yoon rek mu mu defaat ko te lépp lu mu def benn yoon du du euh, en matière de démocratie lépp lu mu jël benn yoon attends-toi que suba boo ko bëggee nangu du du du ko du du ci d'accord ça veut dire quoi ça dire que ne du ñu am recul mukk dañuy exiger encore un peu plus mais mais jamais un peu moins c'est là où je me dis que ne ci loolu la waroon kii tirer ay leçons quoi xam ne euh, li xewoon 23 juin ak li xew Burkina ak li xew feneen ak feneen a ci yam quoi toujours loolu noonu euh, atmosphère boobu noonu mi ngi suñu réew yi tout le temps tout le temps quoi moom mooy moom mooy euh, euh, mal répartition des biens moom mooy lan moom mooy euh, accaparer une pouvoir boo xamante ne bi da nga ko bëgg a def un truc nu mu tudd de patriarcat seulement la famille moom moo koy diriger et consort les amis l'entourage ak yooyu noonu quoi moi je dirais que les gens ils ont compris ils vont jamais plus jamais accepter ça tu as vu léegi je me dis léegi pour loolu noonu yow nga xam ne yow tu es un bon dirigeant pour nga bañ mu amati ci réew ce mooy lan moom mooy tu vas euh, euh, euh, ni ñu koy ti essayer de de de de kii nuñ ko atmosphère wu kii je me perds un peu excusez-moi il faut que nga essayer def benn kii social demande demande sociale bi nga xamante ne bi nit ñi def nañ ko moom mooy lan moom mooy séparation des biens mais nga def nga defal leen ko tu libères la justice soo libérer la justice tu libères les institutions dafay def loo xamante ne bi kenn mënatul jalgati kenn mënatul jalgati loi kenn mënatul nekk au-dessus de la loi et puis tamit dina nekk population bi tamit dinañ dund ci benn euh, atmosphère boo xamante ne bi ils seront libres tu as vu libre de faire de marcher libre de nu mu ko waxeeti euh, euh, de se déplacer libre de s'exprimer man je pense que ne loolu moom mooñ dese en Afrique loolu mooy ces libertés là c'est important pour un peuple c'est ça qu'on vit aux États-Unis c'est ça qu'on mais on n'en a pas Et puis, on n'en a pas au Sénégal en plus. On nous interdit de faire la marche, on nous interdit de voir, voir, voir on nous interdit à tout. Toutes ces interdictions-là, dafay nekk dafay am emmagasiner ci ñun ay kii yoo xamante ne bi euh, day développer ci ñun ay mer yoo xam dañ koy denc dañ koy denc dañ koy denc ba un jour ça fait boum les gens ils vont ils vont se lever et def benn révolution c'est c'est là que les les révolutions pas qui commencent quoi c'est très important de laisser les gens qui manifester leur colère c'est très important de laisser les gens euh, am liberté nu mu tudd exprimer wu dans les radios et tout ça quoi parce que ñun ay nit dong et puis on a notre côté animal qu'on doit manifester ce qui fait que ni loolu bu ñu ko waxee mu dañ moom mooy tane quoi nga nga koy nga leen koy tëj boo ko tëjee rek bu ñu bëggee fippu kenn mënul leen dara te l'homme est dangereux l'être humain il est plus dangereux qu'une bombe xoolal ay ay yooyu noonu intifada ñoo xam dañ leen di tirer ay bombe mais ay ay ay ñu yor di xeer pour te dire que ne l'être humain quand mënul ko dara tous les révolutions c'est ça les gens ils sont déterminés ils sont dañ leen di oppressé oppressé ba ñu ne non jeex na jeex na suñu bakkan ak nga jógee fii lañ bëgg quoi ba da leen koy jaral mois je dirais que ne Macky Sall war na tirer leçon ci loolu noonu ba ñu bañ a yëgati ci affaire yooyu noonu quoi ba ngeen baal ma àq quoi jërë ngeen jëf. jaa jaajëf Ndiaye Mamadou. jaajëf. Ah, euh, Babacar bismillah. yo man de li ma ciy tëje mooy yaa ah, may dégg ah. maa ngi lay dégg ñëwal Babacar ñëwal ah. ok li may tëjee daal mooy man moom euh, lu mel ni population bi baat bi ñuy wax di ko jëmal population bi man mënu ma ko nangu mooy baatu yeewu nañ léegi fii yeewu nit ñi nelawuñu bay bay jaay doole moo fi amoon dañu doon jaay doole mais baatu population bi yeewu nañ man loolu du ci musa d'accord man li ma gëm mooy ñoom dañuy doon jaay doole ñoom it lu tax du ma d'accord na pour du ma d'accord na ñoom xamuñu parce que lu tax lu tax euh, euh, euh, suñ gouvernement yi xam nañ mooy kii nii li ko dal tey Abdoulaye Wade def na ko fi mu koy gis xam nañ c'est que pouvoir ñoom buñ ci nekk dafa mel ni dafa am fu leen di yóbbu pouvoir bi daf leen di yóbbu foo xam ne dañuy jàpp ne bu asamaan si doon wàcc sax ñu téye ko moo tax bu ñu yéegee ci pouvoir bi maanaam dañuy mel ni ku gumba tax lu àdduna da leen di jàpp ba luñ bëgg def dañ naan mën na nekk mais ñoom am nañ xam nañ bu baax li nga xamante nii mooy moom mooy xew ma jox la si ñaari am émission samedi ba le passé bi nga invité Diop la quoi bu ma duggoon ci ligne bi dama naan ko li ngay wax dëgg la waaye gëmoo ko loolu dong laa koy wax coupé dama naan ko li ngay wax li ngay wax nii dëgg gu wér la waaye gëmoo ko kon kooku xam na bu baax li xew bi mu génnee ci nguur gi lay doog a li nga xam ne mooy ba léegi ma nga assemblée toog di fayeeku te defu fa dara Ablaye Makhtar Diop déglu naa ko démb barki démb jeudi même chose comme Diop le ñu lay tegal dégg goo xam ne moo nekk assemblée waaye moom it bu ma ko joxoon téléphone dama naan ko li nga wax dëgg waaye gëmoo ko parce que moom nekkoon na fi assemblée te loolu ma nga fa woon te da koo confirmé ne depuis ci Senghor ba léegi système bi ni muy doxee moo fa te ma nga fa toog di fayeeku salaire te defu fa dara kon ñoom xam nañ li xew. mais bu nekkee ci pouvoir dafa mel ni pouvoir bi dafa yóbbu seen xaw ma nu muy demee noonu kon léegi man ñoom ok buñ jógee ci loolu amaat yow sax dafa am loo xam ne dama la gëj dégg nga débat ci mooy réforme bii am nii réforme yi fi mu toll nii dañu ko bëgg dañu ko bëgg a suula ñoo dugal ci beneen système boo xam ne dañuy tege réforme bi de côté mu bëgg yow même boo ci dellusiwaat même bu dee deux semaines yu nekk nga dellusi dafa am solo parce que ñu ngi koy nëpp nëppal te mën na ñoo jural ëllëg loo xam ne maanaam mënoon na ñàkk te ñoom ñu ngi koy nëpp nëppal parce que lii wàññi seen doole duñ ko bëgg toujours. te affaire bi dafa amul sax affaire doole quoi affaire réew la dañ ko war a toog teg ko mu normal mbir bi dox mais affaire parti lañ ko bëgg a def ay affaire maa falu man ak suma famille man ak suma waa parti man ak sumay xarit loolu doxalul ak réew te lii moo am suñu réew ñun man du ma jékki suñu réew di dem feneen parce que lii xew feneen dafa nekk suñu réew jógeegu fa ñu lii di tudd ay rakkam ci ay pétrole affaire yu demee noonu journaliste yi kenn ñu cee wax ba xóot da ngay rek dem premier ministre barki démb lañ ko laaj na ko affaire pétrole bi loo ci xam mun a xamu ci dara Abdou mbay période boobu moo fa nekk mun a xamu ci dara nanguñ ci sa xóot te rakkam lañ ciy tudd kon dafa am lu fi nekkoon dañ ne li fi nekkoon jugu fi way woowu moo fi nekk li fi nekkoon jugu fi ñun xam nañ ko moo tax moo xam yaa nekkoon sa parti wala sa parti moo fi nekk léegi ñun fa ñu nekkoon démb foofu lañu nekk ba léegi ñun affaire parti taxu ñoo jóg affaire politicien taxu ñoo jóg parce que benn jikko bi la moo fa nekk ya a pas de fi nekkoon jóg fi loolu leer na léegi nag lii problème bi mooy système bi système bi dox tan ko doon wax toujours mooy problème bi yëpp te système boobu moo fa nekk ba léegi ñoom nag nit ñu bugg a dëpp dëppal di ñu bëgg a dugal ci yeneen voie yoo xamante ni ñun loolu taxu ñoo jóg luñ fuñ côté buñ demee nag ñun xam nañ ko ñu ngi toog di leen te bu luy jot luy jot buñ ci tey ñu jëfoo position boobu lañ nekkuñu pour politique gu ñu politiciens wuñ ñu diggu ñi ngi toog di leen cible te xam ne pour ñu yëkkati seen tànk ñun xam nañ ko parce que ñu ak ñoom la woon démb tey soog a dikk ñi fi taxawoon fii tey di kaas yaa ngi dégg naan réew mi doxul lii du yoon ak yoon ana ana ana ana tey kii nga xamante ni ku mën doofin ju ku mën doofin fii la nekkoon fii lu ne mu koy wax mi ngi ci côté Abdoulaye Wade jeune la léegi côté Macky Sall jeune la conseil am la ana Souleymane Julio jeune la conseil am la président bi cinquante ans xale la moo fi taxawoon di kaas moom gaa sax moom def na sept ans ci pouvoir bi fi jógee ana ana ana ñi fi nekkoon di kaas ñëpp di wax ne lii di yoon lii di yoon tey ñoom ñoo nekk kon ñi fi nekkoon ba ñi fi nekk tey ñun ñi fi ñun ñi nga xam ne suñu politicien xam nañ ne situation bi fi nekkoon démb moo fi nekk ñun loolu moom jarul sax ñu ñu koy waxal ñun xam nañ ko kon nag léegi li fi nekk amaan mooy affaire bi nañ koy teg ci rajo bi di ko waxtaane waxtaane bi mooy surtout maa lu jëm ci réforme yi lu ñu bëgg dal ëllëg moo ñu dal sa waaye nee na moom sept ans lañ ko fale mais moom bu demee ba ci biir wax waxee tamit dañuy continuer suñu situation non je ne suis pas d' accord mu ci loolu parce que li tax d' accord ma Macky avant ñu koy fal la ñu wax ne hmm. lii ak lii boo ma falee lii ak lii. très bien voilà li tax ñu ko loolu da cee dafa bokk dafa joxe kàddoom kàddoom boobu mu joxe pour ñu fal ko ci da e bokk. Hmm. du question ne dañ ko waxuñu ko woon bañ fal ko ba pare léegi mu a damaa bëgg a changer déedéet ci bañ ko avant ñu koy fal bool ma fale avis national yi dinaa ci def lii ak lii boo ma falee mandaa bi dinaa ci def ak lii boo ma falee lii ak ci kàddoom yooyu lañ sukkandiku woon kon kàddoom yooyu du toog ñu naan ay loi bi non loi bi bañuñu ko mais kàddoom dafa ëpp loi bi. kon nag léegi bu ñuy jéem a taxaw ci tey naan lañ ko fayee bu bu fekkee ne cinq ans yi nangu ko sept ans yi lay continuer ñu xam ne wax na waxet non loolu dafa yomb loolu yomb na trop kon Amath ma lay jaajëfal yow it di la sant di la gërëm. jërëjëf di la ñaanal fan wu gudd ak wér ak kàttan. amiin di ko jaajëfal di ko ñaanal mboolem jullit. di ko jaajëfee bu baax. Um, Euh, nu mu tudd Babacar euh, Super ndax bi yoon client bi wàcc na. waaw Amath. waaw. ma ne ko c'est moom euh, pratiquement moom boo xoolee gars yi wax nañu lépp comme ni ma ko waxee rek parce que xam nga adduna bi fu mu toll dana toll si benn moment bi nga xam ne nit ñi léegi kenn du leen jurisé leen neexul amul. muy Afrique gépp nag fu mu toll nii Sénégal boo gisee ba léegi ñu ngi ne teg c'est gisaguñu leneen li nga xam ne fu mu toll nii war na tax ñu jóg ñoo ngi gis ne fu mu toll nii ok ça va ça va mais gis nga bés bu taxee bés bu di bés bu ñu defee leneen li nga xam ne dina tax population bi génnaat boobaa population bi day génnaat parce que gis nga Afrique fu mu toll nii dana toll si ay moments yi nga xam ne soxlatuñu ku ñëw di ñu naax wala ku ñu jéem a jaar affaire royaume wala ki nga xam ne day ñëw xam nga xam nga ki ñu soxla mooy ki nga xam ne dafay ñëw maasek nit ñi bien vrai moom mooy président bi sax mais mu maasek nit ñi liggéey li nga xam ne moom la ko population bi teg waaw mais gis nga fu mu toll nii gis nga même euh, dafa commencé dafa commencé si yenn dëkk Afrique yi rek de mais lu ma la wax leer nañu la fu mu toll nii Afrique jeunesse bi ñëpp maar jeunesse Afrique bi laa la wax ñëpp maar boo xoolee fu mu toll nii africain yi ñu ci bëree bare bare bare ñu ngi toog di déglu rek suñ président def benn infraction bu ndaw ñu réagir te nag gis nga même Sénégal fu mu toll nii ñun ñu ngi wax ay problème mu euh, en deux mille dix sept mais man je ne que deux mille dix sept bi dina war a mën a nekk parce que gis nga ba léegi fu mu toll nii gars yi nangu guñ cee nanga guñ cee laal c'est parce que boobu ba léegi ñoo ngi wax naan dañ ko yóbbu ay référendum ñu na mais mais am na am na li nga doon wax sànq c'est vrai gis nga fu mu toll bu ñu amoon assemblée bi nga xam ne ay député yi nga xam ne ay député yu bien yi nga xam ne vraiment wax dëgg yàlla dépendre ñu dara si affaire président affaire référendum bi ñuy wax ni mun naa ñàkk mun nañ ko yóbbu assemblée député yi nga xam ne dañ faa nekk pour askan bi député yi toog xool li nga xam ne mooy intérêt Sénégal ñu voté ko mu jàll soit day def sept ans yi soit du def sept ans yi mais xaalis bu bëri dañ si nar a def noonu yëpp amaat mais am na feneen lu bëree bari bari bari yi nga xam ne war na fa mën a xaj te loolu loolu fu mu toll nii Macky Sall mu retour arrière rek Macky Sall il faut mu dem deux mille dix-sept bi nii ah, ah, man de sincèrement bu fekkee ne nee na 2017 bi di ko jéem ay yóbbu ay 2019 man de maa ngi ñaan sénégalais yi ñu bañ a xeex bu ñu sànni xeer bu ñu xeex bu ñu def dara ko déglu ko garawul amul problème sa temps yi xam naa ne ah yeneen deux ans ci topp moom xam naa ne moom dina jéem a def tout tout tout tout tout amaat ci moom confiance bu joxaat ko pour mu diriger mais c'est sûr que bu fekkee ne dafa bañ affaire boobu noonu ah bañ na fu mu toll nii moom. Euh, il fallait mu dem de mille dix neuf gars yi duñ ci xeex kenn du génn ci terrain bi wala bu ñu génn ci terrain bi tamit ah dañuy génn rek wane ne yow yaa waxoon lii mais defoo ko mais bi ñu jaral yenn affaire yi da koy xaar ci tournal ba deux mille dix neuf la nga koy xaar kon te yaakaar naa ne nag fu mu toll ni tànk bi mu jëptee yi maa ngi gis ne vraiment wax dëgg yàlla affaire yi ñu ngi commencé changé am changement yu ndaw a ndaw a ndaw maa ngi gis ay affaire yaa ngi commencé am changement yu ndaw a ndaw a yenn complément yi nga xam ne moo ci des yi nga xam ne ñun moom la ñu soxla ñun sénégalais ñun moom la soxla mooy ku bëgg a jàngi-jàngi ku bëgg a faju faju lekk bi doy Sénégal yoon bi taxaw pour ñëpp justice pour tout le monde foofu daal la am lu ma waxee amaat maa ngi déglu bu baax di rafetlu affaire bi nag waaw merci. jërëjëf Super Ngaaga euh, mu am solo lool mu dese ñu neuf minutes pour ñu delloo. Euh, kàddu gi kii nga xam ni moom mooy soxna Ndeye Pétaw ci 100 pour cent tabou xam naa du ñu mën a jox ku ci nekk une minute pour nga conclure parce que du ko mate te mënoo jox ñii dagg ñi ci des alors euh, man vraiment ah damay souhaiter c'est un souhait nag c'est un souhait que certes président amoon na intention wu réformer nos institutions c'est une volonté affiché dès le début Mor est-ce que mën nga essayer une dernière fois seet ndax euh, dina dem Morane Mor kon mujj naa mujj naa mujj naa hmm. waaw waaw waaw waaw ñu ngi dégg kon tey du baax Mor waaw kon baax na kon ah te man li fi gars yi wax lépp rafetlu naa ko le l'essentiel rek ñi fi nekk Sénégal ñoom gars yi ñeneen ñëpp bu baax te xam ni peuple Sénégal moom dara soppi nag liggéey ñu leen joxoon ba xam dinañ ko def wala duñ ko la sax ñuy waaye bis bu ñu loolu moom mënal na si bopp bu baax a baax yàlla na ko fépp si at pour moom du lu ñuy yàggal fu di jaar jàppale liggéeyal seen seen bu def incha allah Mhm. ma leen di sant di leen Mor may bëggoon rek di euh, souhaiter que président bi vraiment mu dellu si waat ci ses première intentions avant muy jël nguur gi ak juste ba mu jëlee nguur gi parce que c'était des intentions yoo xam ne ni dafa tracé woon exactement ce dont a besoin le pays et c'était base sur des réformes. yenn bi principalement mooy les réforme des institutions mbirum suuf mi aussi waroon na ko réformer administration bi aussi waroon na ko réformer c'était les trois vraiment grands projets pour man que Macky Sall mënoon def munoon accomplir mu réussir ko et il rentre dans l'histoire parce que jusqu'à présent dans les pays africains le Sénégal qui nous concerne tous nos présidents ne sont pas concernés amin seen xel demul ci nii naa def loo xam ne je rentre dans l'histoire pour toujours et dañuy am la possibilité dañuy am xool la Wade di mu jëlee pouvoir bi rek tellement qu'il avait la possibilité d'entrer dans l'histoire en mettant le pays sur des rails yoo xam ne man na kenn dootul wax waxu institution ba pare il fait la réalisation comme euh, de ces infrastructures comme ni ko defee demoon nañu sax ba koy comparer ak Nelson Mandela mais malheureusement au finish politique dab leen ñu wàcc seen yoon dem topp politique bi et je sens le même coup avec le président Macky actuellement il est obnubilé par la politique obnubilé par la politique et je pèse mes mots. Et, ce serait dommage pour lui et pour nous que mu bàyyi yoonam boobu le professeur Ismaïla Madior Fall chaque jour bu jëlee bu ubbee gémmiñ gi rek il essaie de nous faire avaler la couleuvre comme quoi que ni il n'a jamais été question de euh, d'une nouvelle constitution il n'avait jamais été question de euh, réformer les institutions mais par rapport à certaines dispositions les modifier mm-hmm. nga xool ni ñuy delloo ginnaaw nànk-nànk par rapport à ça parce que ñoom it politique lañ jiital fu mu toll nii dans l'opposition Abdoulaye Wade l'avait fait et boo leen fàttali ko lorsque j'ai invité Pape Diop ne il a il a reconnu que ni leur plus grande faille mooy lan pourquoi ils n'ont pas réformé l'Assemblée nationale et il avait l'intention de le faire en prenant le pouvoir mais boo jëlee pouvoir yi ba pare nag bëgg loo wax ñu def da nga naan kon assemblée bii moom ma arrangé mais yow xam nga assemblée bi gën ci réew mi et il a reconnu su ces sur ces trentaine loi Pape en tant que président de l'Assemblée nationale en tant que président du Sénat en tant que nom foor du régime de Ablaye Wade il l'a reconnu Macky aussi wax la ko ba ñu dégg ko que ni institution yi dañ ko war a defaraat surtout nit ñi fale leen nos députés mais une fois au pouvoir on te dit que tu as besoin de la majorité donc cette majorité là waroo koo caaxaane cette formule là moo la arrangé xam nga nit ku musuta liggéey damay waxtaan nag keroog ancu di ko jox benn exemple boo xam ne ndeysaan yi ko ko woon sax ma ne ko ci ci régime Abdoulaye Wade tout juste ba fa PS nekkee ba tey mu ne ko am na un député bu Louga dafa mbéj Aminata Mbengue Ndiaye mu ne ko waa ji da koo dóor mbéj un député du Parti démocratique sénégalais c'était un gars après enquête qui était à Louga et puis qui ne travaillait pas avant de venir nationale waaw mais kooku nag yow boo bëggee ŋàññi ki ko ki ko jox place boobu yow après ëllëg nga bëgg koo xañ place am boobu mais da ciy teg bakkanam un gars qui n'a jamais travaillé dans sa vie nga xëy bés yóbbu ko assemblée nationale il perçoit un million et quelque de salaire am mille litres d'essence mais kooku loo ko wax mu def ko Et Cheikh John, député de l'APR, l'a dit l'autre jour sur le plateau de, euh, de la 2 avec Pape Alenia. Il l'a reconnu même en tant que mouvance présidentielle. C'est un problème de notre Assemblée nationale. Parce qu'il y a des gens qui ont ramené, même si nous avons 50 000, nous avons 100 000. Matel nous avons rek par la volonté d'une personne, on te met sur une, une liste et tu perçois 1,3 million par mois avec 1000 litres d'essence auto. tabaski jot ñu neexal la korité jot ñu neexal la école ñu neexal la waaye mais est-ce que kooku dana wax loo xam ne yow di ko teggi kenn du la xañ sa teranga da ngay bëgg di gën a toog yow it ngay gën a toog am ñetti mandat am retraite parlementaire ah waaw kon président bu ne damay changé nga ne changé ndax ma dina amaat beneen mandat su ma amee ñetti mandat am retraite parlementaire foofu la la sunu institution yi di gaañee aussi longtemps ñu ngi dem sans changer loolu mooy le système électoral ni ñuy fale les députés le problème restera entier le problème restera entier donc man je crois que la bataille qui va d'être menée au Sénégal aujourd'hui mooy insister pour que vraiment ñu dem vers un changement de ces constitutions la même bu ñu changé wu constitution bi aussi ñu dëgëraat ko dëgërëlaat ko mais ni ñuy falee député yi ñu changé ko les organes de contrôle de l'État ñu génne ko au niveau de la présidence les rendre autonomes et indépendantes loolu rek moo ñu mun a garantir ñu am ay institutions yu viable ba nga xam ne ce qui s'est passé à Ouagadougou à Bobo Dioulasso ou bien à Burkina Faso vraiment ci ñaari fan yi wala boog ce qui s'était passé au Sénégal du fa amaat parce que boobaa ce sont les institutions qui vont tout contrôler les hommes seront sous le contrôle des institutions mbokk yi waxtaan bi am na solo alors émission yi malheureusement léegi dootuñu dem SoundCloud léegi ci euh, YouTube rek la ñuy yem ah am na benn page boo xam ne da ngeen koy chercher Oriental Production la tudd Oriental Production foofu lañu koy def sous forme de vidéo posté ko Oriental Production alors euh, mun ngeen fa dégluwaat émission yi euh, si vous aussi di ko jot seen email directement da ngeen di abonné wu ci page boobu ya am na foo xam ne da fay abonné wu boo leen fa abonné wu saa yu ñu poster daf leen koy yónnee automatiquement si seen email nga xam ne dootu leen fi nekk di dem ci benn page di seet fa la nekkee alors da ngeen di dem YouTube ngeen xool Oriental Production alors foofu ngeen di amee léegi les archives euh, des émissions de Pencim wax sa xalaat ak du club de la diaspora waxtaan bi neexoon na am na solo vraiment ñu leen di jox rendez-vous altine incha allah ci kàttanu borom bi euh, pour seen beneen numéro euh, penc mi wax sa xalaat leen di lay nekk à partir de 21h euh, heure de New York d'ici là on vous souhaite un très bon week-end di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen on rend l'antenne à Sénégal ndax Ndeye Pétaw jël moom it pour cent pour cent tabu muy une émission tamit wax dëgg neex bu am solo ñuy wax ci wàllu social di dugg ci euh, lépp li nga xam ne mbootu société bi la di ko teg sur la place publique gars waxtaan ci au revoir. su ngeen bëggee siiwal seeni yëgle moo xam fu ngeen mën a